Leewtoo TV ni ñëw yéen nag si jàngatu arène bi nu commencé ko ak sunu lamb sunu lamb daal nee na nouvelle orientation bi maanaam daal ku war a wét remplacé ki nga xam ne moom mooy Alioune Sarr ñoom daal gis nu kenn ki nga xam ne moom mooy Tyson ndax Tyson weekend bi sax euh, jànk euh, jekk euh, waxtaan ak waa sunu lamb waa sunu lamb buñ ko laajee nag sa tour nag moo gën a avancé si mën a nekk président CNG pour remplacer Alioune daal lu leen tontu daal nee na daal lu si kanam rawule bët loolu journal bi ñëwaat tey nag si lënd ji moom la indiwaat nag nee ñu Tyson désormais présenté président du CNG ki nga xam ne mooy géotechnique président économique Serigne Ndiaye moom nee lu mu gis daal moom daal pare pour euh, succéder ki nga xam ne moom mooy Alioune Sarr ñu ñëw nag euh, si euh, si def si si bilan yi te nag journal dañu indi ki nga xam ne mooy écurie Dóor nee ñu nag écurie Dóor Dóoraat ngi si 7 victoire ak li nga xam ne moom mooy 7 défaite Jamaïcain nag ginnaaw nag bu mu amee ay laam lay me diggante xoyantaan ak double moom ginnaaw nag combat bu mu amee woon daaw si gàmm bi combat bi nag mujj woon antu ndax ay mbirum euh, diggante bàyyi ma yoon daggal wee ak euh, du ma dagg sama wee euh, journal bi aussi sunu lamb bi ñuy xamal ki nga xam ne mooy góorandooy góorandooy nag moom daal lu mu gis daal nee na prochain président wu CNG profil bi mu am daal dafa nekk homme boo xam ne consensus maanaam di yaatal déglu ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ñoom nooy yëngu si làmb ji suñ jógee nag sunu lamb jógee nag sunu lamb nañ dem fi nga xam ne moom mooy record record nag moom def nag li nga xam ne moom mooy bilan wu daal si 6 victoire nee na daal si 6 combats nag am na li nga xam ne mooy 6 victoire si kaw waa Pikine nag journal bi aussi mi ngi ñu xamal nag journal record mi ngi xamal li nga xam ne mooy promoteur yi nga xam ne dañuy verser ay avance sur cachet maanaam jafe yu ñu am nag pour verser avance sur cachet ñoom nag journal mi ngi xamal si xalima xalima abun nee na est-ce que tamit est-ce que tamit euh, nit ñi war nañu mere li nga xam ne moom mooy promoteurs yi euh, suñ jógee nag si bëre dóor bi nañu dem nag si bëre simple bi ki nga xam ne mooy booy Faye am na 4 trophées am gagné li nga xam ne mooy 4 millions 250 mille francs nee na nag si saison bi continué woon nee na nag moom mooy nekk le meilleur lutteur de la saison su ñëwee nag si wàllum wayi si Adrien Senghor ki nga xam ne mooy Ndeye Fatou euh, moom daal moo nekk si kanam ki nga xam ne moom mooy Mayang parce que 10 fois sur 17 gala maanaam daal jël nañ ko si biir arène boobu mu way si 17 euh, gala di fukki yëpp moom moo ko way suñ jógee nag fi nga xam ne mooy record nañ dem fi nga xam ne mooy euh, maga muy observateur foofu nag dafa dalal nag ak ki nga xam ne mooy troisième tigre de Fass muy Gris Bordeaux foofu nag sekk na fi waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ni moom mooy Idrissa Sane moom daal moom euh, ak li nga xam ne moom mooy mbër bi suñu demee nag ba ay wax di ñaaw di si am maanaam di xasante daal di di tuumante ak di wax wax ju ñaaw moom daal lu ma gis daal mooy delloo xaalisu 10 millions ki nga xam ne mooy Gaston Mbengue mu wuti leneen moom te mu mu dem euh, xooli beneen adversaire mu bëree journal bi nag ki laaj na fàttaliku ne ko est-ce que yow bëgguloo daw ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 comme ni ko nit ñi doon waxee moom nee na nag pour wan ne que moom preneur bu rek Balla na daal ubbi na buntu képp benn promoteur boo xam ndax nee na Gaston jox ko fukki million rek nekk nag di ngawti ngawti euh, turam bi du ko yóbbu fu nekk moom nag neelu su dee loolu moom mu bàyyi ko te nee sax fukki millions yooyu bu ma ko joxee ay coono rek la si euh, la si daj parce que nee na blanc bu mu demee si compte Gaston yi fekk fa dara dafa mujj ñëwaat delawaat ko ay chèque am euh, Gaston mais ñëkk ko jox avance su 5 millions bu tabaski desee benn fan maanaam le 31 juillet jox na ko 3 millions bu si tegaatee ay fan yu néew mu jox ko 2 millions neen daal fukki millions yi noonu la si mujjee jot te nee na nag jot na nag kuy moom mooy Balla Gaye a baax moom ak Gaston Mbengue 25 millions la fas yéene woon mu avance ko waaye daal 10 millions yi balaa mu si jot dafa méttee métti moo tax nag mu ne comme que 10 millions yi dafa métti kon nag 15 millions yi su si naree daw nag ba dee balaa caa nag mu dem seeti leneen Gaston dem nag seeti leneen suñ jógee nag foofu nañ dem si Leewtoo TV foofu nag ki nga xam ne mooy euh, euh, manager yi Gris Bordeaux di Khalifa Dia sekk na fi waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne mooy Babacar Diom moom nag lu ma gis nee daal Gaston Mbengue am na nga xam tam muy euh, poulain om na dëgg parce que nee na Gaston na droit ne du joxewaat 15 millions yi tant que saison bi ubbiwul kii nga xam ne mooy Gris Bordeaux aussi am na xam ni moom la ko Gaston yoreel waaye daal neen daal lu si mënti am daal nee na Balla Gaye euh, Gris Bordeaux dina bëre ak ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye mais nag combat ak ki nga xam xam ne mooy Balla Gaye du war a du yomb il faut nag mais nag Balla ki nga xam ne mooy Gris am na ay bagage technique yoo xam ne war na mën a daan ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye ñëw nañ xam ne dañ koy jokkalante diggante poulain Gris Bordeaux ne mooy Gaston Mbengue moom nee na nag si lii yëpp weesoo nag loolu dootu amati biir face ndax nee bi taxaw pour mbër bi taxaw promoteur bi taxaw nee na daal loolu moo fas yéene na nag ki nga xam ne euh, moom li lu journal yi di bind naan Gaston euh, Tapha du euh, ki nga xam ne mooy Tapha Gueye dootul Euh, du ñëw euh, ba jàppale ki nga xam ne moom mooy euh, Gris Bordeaux si combat bi ak Gris moom nee na loolu gisul loolu nee na ki nga xam ne moom mooy Moustapha dina teew si si combat bi te pare dina dina jàppale bu baax a baax ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux bis bu combat bi taxawee diggante moom ak ak ki nga xam ni moom mooy Balla Gaye loolu lañ leen indiloon si jàngatu arène bi si si revue de l'arène bi leen jox nag dig daje pour jàngatu arène bi waa Leewtoo TV ñu ngi nuyu di leen gërëm di sant ginnaaw nag bu ñu leen defaree euh, jàngatu arène bi ñu ñëw ak ginnaaw bu leen defee revue de l'année bi ñëw nag yéen nag si jàngatu arène bi ñu commencé ko ak li nga xam ne moom mooy sunu lamb sunu nag ba léegi nag mi ngi si wàllum ki nga xam ne moo war a yuutu ki nga xam ne mooy président Alioune ñoom daal lu ñu gis daal mooy nee na Tyson Tyson daal moom la moom la acteurs yi présentir ginnaaw bu mu amee sekkal ñoom waxtaan week-end bi ñu jàll Tyson lu mu lay xamal daal neen daal lu si kanam rawuli bët donc dañuy xaar lekk nu xool comme li ñuy wax rek ñu yónni yàgg ba xam diggante Euh, président ki nga xam ni euh, euh, mooy Tyson ak ki nga xam ni mu war a remplacer ki nga xam ni mooy président Alioune Sarr ki nga xam nag si journal ba léegi mooy géotechnique nekk président économique Serigne Ndiaye moom lu ma gis daal nee na moom pare na pour wutu ki nga xam ni mooy Alioune si kaw président wu CNG suñ jógee nag si Euh, pré wàllum président wu CNG boobu nañu dem nag si bilan yi te nag journal sunu lamb bi ñuy euh, defar bilan wu écurie Dóor Dóoraat nee na am na 7 victoire ak li nga xam ni moom mooy 6 défaites euh, suñ jógee nag foofu nag nañu dem si Gora Ndiaye moom daal lu ma gis nee na daal prochain président bu du CNG maanaam ku war ki nga xam ne moom mooy Alioune Sarr dafa war a nekk un homme de consensus maanaam nit boo xam ne daal day déglu ñëpp yaatal ubbil buntu ñëpp ba ñëpp xaj ci biir euh, CNG boobu noonu suñ jógee nag foofu nag dañu dem nag si Jamaïcain ginnaaw bu mu taxawlee daaw combat bi diggante Baye Mandione ak Xoyantaan foofu si bi te mujj nag combat mujjul antu nag taxawal na combat revanche bi nag fii nag si Dakar diggante Baye Mandione ak ki nga xam ne moom mooy xoyantaan suñu jógee nag foofu nag dañuy dem nag si euh, observateur observateur nag dafa euh, sekk ak waxtaan bu yaatu ki nga xam ne moom mooy euh, Gris Bordeaux Gris Bordeaux daal leen daal ginnaaw nag diggante moom ak Gaston nag neexatul maanaam ku nekk nag mi ngi yàq dërëm fu nekk si journal bi moom daal fas yéene na delloo 10 millions yi nga xam ne Gaston mais moom la ko joxoon pour daal Gaston dem seeti beneen moom mu dem seeti beneen beneen promoteur moom nag nee na nag si euh, journal bi journaliste bi laaj na ko est yow tamit nekk loo di daw ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye mu ne nag moom lu mu am bëreeg ak Balla Gaye leeral diggante moom moo ko gën a lu nekk parce que soo xoolee sax ba si biir moom nee pare na pour bëre ak Balla Gaye mais daal beneen promoteur la bëgg mu tëgg combat boobu daal muy daal kii di gasoo fas euh, bëreel li des si carrière si làmb ji nee nag soo xoolee nag 10 millions yooyu Gaston Mbengue wax ji bëri na lool te nee na jox na ko ñaari chèque yoo xam ne bu mu demee banque ba compte gason Mbengue dara nekku fa moo tax nag bu mu ñëwee mu delloo Gaston Mbengue ñaari chèque yooyu Gaston Mbengue ñu ko jox benn euh, chèque liquide Euh, jox ko liquide maanaam cinq millions bu tabaski desee benn fan jox na ko 3 millions bu tegee ay fan yu néew jox na ko 2 millions maanaam muy 10 millions si loo xam ne 25 millions nee na nag situation làmb ji sax tax mu mu bëggoon euh, jël 25 avance 25 millions mais xam nañu 10 millions kenn mënu ko jël pour préparer li nga xam ni moom mooy combat bu toll ni ak ki nga xam ne moom mooy euh, Balla Gaye suñ jógee nag foofu nañu dem nag si record record nag nee ñu daal Siteu daal moom mooy bête noire ñi nga xam ne moom mooy moom mooy waa Pikine mbërum Pikine ndax nee na si six combats euh, Reug Reug euh, euh, am na fa si six victoire suñ jógee foofu nag nee ñu promoteur temps yi nañu am toujours si xalimba Abou Nour promoteur daal problème yu ne am pour joxe seen ay avance nee na que loolu tamit si fëtu promoteur yi est que tamit les fautes ne son pas partagées suñ jógee nag foofu nag nañ dem nag si bëre simple bi nee nañ tey nag le bilan de bi ngi dalal ki nga xam ne moom mooy booy Faye nee na Boy Faye am na 4 Euh, gagné 4 millions 250 mille Boy Faye nag lu ma gis nee na su làmb ji continué woon maanaam su du woon coronavirus bi ba nu arrêté saison bi moom daal am na yaakaar ne moom moo naroon nekk meilleur lutteur en lutte simple si saison bi nu génn si toujours nag si lutte euh, simple bi ñu dem nag Adrien Senghor nee ñu nag Adrien Senghor nee na ki nga xam ne mooy Ndeye Fatou moom daal moo nekk si kanamu Mbayang Loum parce que Adrien Senghor taxawal dëgg nañ foofu di set gala lu simple mais nag fukki yëpp moom la ñu woo mu mun a way euh, combat mu mun a way gala yooyu suñu jógee nag foofu nañ dem si Leewtoo TV foofu nag mu ngi fa dalal ki nga xam ne mooy xalifa Dia nekk manager Gris Bordeaux man manager bi nag lu mu gis neen daal kii di Gris Bordeaux muy Poulain am ak ki nga xam ne mooy Gaston Mbengue ñoom ñëpp soo dégloo ku nekk am na dëgg parce que nee na Gaston Mbengue am na droit ne du ma joxee 15 millions yi tant que CNG ubbiwul Gaston Mbengue Gris Bordeaux tamit am na droit laaj li nga xam ne moom mooy 15 millions pour mu mun a Euh, mu mun a préparer combat bi nga xam ne moom mooy Balla Gaye ñeneen nag euh, Gris Bordeaux moom am na bagage technique pour daan ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye waaye neen du yomb ndax nag ki ki muy jàkkaarloo muy Balla Gaye mbër kaamil na neen nag mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ñaawlu li nga xam ne journaux yi ni ñu koy bind di wax naan euh, Moustapha Guèye di di préparer combat bi ak ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux nee na daal Gris Bordeaux ak Moustapha amu na benn xaar ma yàlla te daal seen diggante gën a ratax loolu la xalifa Dia expliqué foofu noonu si Leewtoo TV nag lii lañ lay indiloon nag si jàngatu arène bi euh, balaa boobu nag mooy nuyu sama yaay Meeso nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane DG Barama Cheikh Khadija Dia nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye Baye Fall Diamaguène Papa Sita aussi maa ngi koy nuyu di nuyu xam ne mooy Asek Cheikh Khoudia Seck depuis Italie aussi maa ngi koy nuyu di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya Grand Fallou ak Petit Astane di ne depuis Tivaouane di nuyu aussi Babacar bi nga xam ne mi ngi ak yaay dafa demoon tam xarit xam naa nag suba moom dina fi teew incha allah.